dem demaat moo fa am kenn gungewul kenn kenn yóbbuwul kenn dimbal leen ñu bàkkaar ba fa demoon loo lan luy ndayu bàyyi sa ñaari jabar dem suite bote aji saar dafa mën a faj dimbal leen ñu ragal yàlla mooy ñàkk a teg sa tànk suite bote loolu mooy ragal yàlla dëgg nañu jëkkee foofu ku ragal yàlla doo teg sa tànk suite boote dimbal leen ñu bàyyi leen ñu def leen loolu waaw chaque jour am na ku bees ku dem suite bote chaque jour am ku bees dañuy xëy rek di tànqal nit ñi ah bu nekk di leen tontu ñi dañoo rabaate fi nekk di leen tension bi dafa bëri parce que dafa am ñoo xam ne ne Adji Sarr ñëwee ay mbokkam gunge ko mu ñëw tribunal wuyu si loolu daf leen metti parce que dafa déconstruire lu bëri dafa am ñu bëri lu ñu waxoon loo xamante lu mu déconstruire comme comme lan par exemple. xam ne xale bi dafa wéet xale bi wéetul dafa ñëw ay mbokkam gunge ko ay gunge ko ay nitamit gunge ko parce que am na ay nit ñu farak moom am na ñuy nit ñu ko jàppale. léegi nag wax dëgg yàlla na na yoon def liggéeyam kenn amul droit ñoo fi soutenir Adji Sarr kenn amul droit boobu. wala léegi amatuñu droit ñëw jàppale nit. jamono yee passé demoon nga seeti ki nga xamante ne moom mooy Adji Sarr justement pour euh, fédérer sa soutien ci moom mais nan nga gisee moralam exactement. mais moralam wane na ko tey bi mu ñëwee tribunal bi donc yàlla na ko yàlla jàppale yàlla sotti ndox ci dëkk bi jeex na. ndax am ngeen yaakaar ne moom mën mën na cee génn vraiment euh, vainqueur quoi. non mën na génn vainqueur amul parce que le mal est fait le mal effet fait et boo gisee lii benn nit dong dem salon lii yëpp am ci réew mi xam nga ne problème la quoi. yow doo journaliste xam nga loolu mooy problème bi quoi lii rek wane na ne on ne peut rien rattraper jeex na. lay jaajëfal ñun nekkuñu pour kenn c'est-à-dire ñun ay ay tey par exemple ñun ñun jeunesse bi bu ñu yeewoo ci politique nga xam ne ñi nga xam ne ñoo moom lii wala ñoo am lii Sonko moom moo ñu ko may. opportunité boobu Sonko moo porte yi ci jël ñi xam ne xam nañ ko ñun duñ ko sàgganee. bépp bépp dëgg boo xamante ni tey moo ngi dox dinañ ànd ak moom bépp fen boo xam moo ngi dem dinañ taxaw pour freiner la ñun ci loolu lañ nekk parce que li may wax nii man dëgg la ñu nekkul ci dëgg Gabriel bi ñuy dem ci jàkkaarloo man ak moom ñoo bokk même oto Ablaye Der jël si ñu ci biir oto bi lu commencé di wax seen waa ji seen waa ji nii moom loolu leer na ma li may wax dëgg ñëpp a ngi koy dégg Gabriel laa wax Gabriel mii keroog ñoo bokk oto bi ñuy dem ci jàkkaarloo bi keroog bi ñuy dem ñoo bokk oto ci jàkkaarloo bi kon li may wax lu leer la te bi muy wax moom ci boppam mu ngi wax Ablaye Der ne yéen seen waa ji ngeen wax ne ne li ngeen wax ne siiful nangam moom moo def loolu. ma ne ko yow fii ba